mooy euh, assemblée nationale 11h22 minutes léegi nag gendarme bi mi ngi tijji porte bi gendarme bi tijji na bunt bi honorable di leen amoon na tuuti jafe-jafe euh, dafa mel ni ki Mously Diakhaté la wala euh, mel ni Mously la may xaw a nduru voilà Mously Diakhaté moom moo agsi noonu mi ngi noonu honorable député Mously Diakhaté. Sabador bu bees la sol. sonko du xeex sonko du xeex baaxul ci moom déedéet déedéet baaxul ci moom voilà ñu ngi koy xëcc waa mm. parce que ñoom yàgg nañ ci biir ah yàgg nañ fii ci óol bi mi ngi noonu xëy na ñu génnee ko mi ngi noonu ñu ngi koy yóbbu waaw Pape euh, ñoom ci seen biir mm. déggoowuñu mooy mooy sànq li ma la doon wax parce que bi ñuy interrompre euh, bi ñu bi ñu arrêté woon séance bi dañ doon xuloo di xeex ma ne la loolu benn soxna buy sëy la si biir assemblée nationale xeex ak saagante moom daanaka dàmm nañ ko biir asam loolu du information mais sox bi moom ñun suñu kanam moo tax mooy mooy li ma la doon mooy li ma mooy li ma la doon wax sànq ah, parce que li tax ñu ñuy parqué ci biti toujours ñu bañ a génn yenn image yi mm. député bii moo voté projet de loi bi député bii moo voté projet de loi bi pour ñu jéem a sàmm seen kaaraange nga xam ne bu fekkee ne euh, député yu bokk ci mouvance présidentielle muy Benno Bokk Yaakaar nga xam ne ñooñu bu ñu ko voté dinañ mën a sàmm seen kaaraange ndaxte ci biti bu ñu voté yenn yi si biti day tàng léegi nag gis nañ fi ay ñoo xam ne dañu taal seen kër dañ saccagé seen i kër xëy na raison yooyu rek la mais ñun amul benn raison boo xam ne journaliste dañ leen di bàyyi ci biti loolu moom amul explication euh, sëñ Mansour Sy Djamil mi ngi noonu di ak si honorable député hmm? le sage bu ñu bu ñu mënee débat boo xam ne day nekk ay question yoo xam ne dañ koy soulever day nekk ay question yoo xam ne nit ñi dañ koy waxtaane dem nañu ba ne tey bu fekkee ne li nga xam moom mooy élection locale élection locale ay mairie bu ñu ko gisee ay mairie élection locale tête de bi tête de liste benn partie wala bokk benn mouvement bu dem ci élection locale yaa ngi dégg tête boobu boo gisee bu ñu demee ba war a euh, tab ki nga xamante moom lañ defoon tête de gox boobu mais kooku doo ko gis mu nekk maire keneen la ñuy jël ñëw teg ko mais assemblée nationale tey bu ñu ne lan lañ koy waxee ci olof pencu ndawi réew mi. Mhm. ki mooy gàddu ko Ousmane Sonko nga xam ne moom waaw foofu ca VDN moom waaw ba dugaloon lacrymogène bi. mi nga wax téléphone moomoo léegi yow li ngay wax téléphone après boo ñëwee mën nga ñu ko wax wala man ak Rose. waaw je moomoo génn na mais limousine mi ngi ci biir moom meneen garde corps bi mi ngi ci biir waaw eh dafa sañ sa tey moom moom mi ngeen jaab de moom moytu balaa ngay daanu parce que ah, beneen garde corps. beneen garde corps bi que jëlul ko est que jëlul ko en téléphone lay joxe. téléphone lay jël. benn téléphone lay jël rek benn téléphone lay jël. ay eh, moo kuu bi nu mu demee. moo kuu bi nu mu demee. moom moo ngi <laughs> moo ngi ree ba saa di ñu loxo. xam nga ne am na ne am na ne presse bi dañ ko sonal. Ah. Ah. boo xoolee presse bi dañ ko sonal. Eh. ndax bu ñu demee bu àndee ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ñu bëgg ko jege. non suñu waay la nag daf ñuy defal trait de limite bu ko fee mën a ko xolal man bu ma jaayee. doole ah non boobu mbaax la suñuy gars yi <laughs> lañ. Ah, jigéen laa da nga may door ah da nga door jigéen. wax dëgg yàlla suñuy.